waaw man la Mouhamed Moustapha Diagne di citoyen président bu Synergie républicaine nekkit euh, directeur formation ak communication bu ministère bi yor njàngale mi ci réew mi tey da dañoo ñëwoon Thiès di inaugurer suñu siège ñu tuddee ko maison du citoyen ñu ne boo gisee ñu wax citoyen c'est parce que dañoo bëgg dañoo jàpp ni sénégalais yëpp benn lañu euh, réew mi ñun ñëpp dañoo war a ànd tabax ko amul góor amul jigéen amul géer amul géwél suñu mbokk géwél yi dañoo muus rek bëgg lekk suñu xaalis tudd seen bopp géwél waaye <laughs> yooyu amul benn njariñ donc tey nag ñuy inauguré siège bi ginnaaw bi ñu defee tournée nationale wër Sénégal yëpp te defe naa ni euh, altine sax war ñoo dellu boori Kolda ak Tambacounda pour donc mottali liggéey bi waa ah, parti bi nag ñu ngi ko créé 2007 mu am fukki at ci ren bi ñu koy créé it xamuñu président Macky Sall ñu aussi créé ko dañoo xalaat créé ko jàpp ni am réew da ngay bokk ci ñu croiser les bras seetaan wala nga bokk ci ñu koy tabax ñu décidé bokk ci ñu koy tabax ñu tabax euh, ñuy tabax réew mi yàlla dimbali ñu aussi ñu ànd ak président Macky Sall créé classe coalition Macky 2012 jël réew mi waaye nag ma ne woon ko dañoo am parti gën am parti xam nga siège mi ngi fii. suñu sunu ginnaaw APR lañ tudd ñun ñu tudd Synergie républicaine ñoo bokk ndey waaye ñu bàyyi <laughs> te it ah, ñun sunu génération ñu def politique te bañ a xalaat après Macky Sall dañ ko jàppale mu am benn mandat incha allah euh, euh, jàppale ko aussi mu am deuxième mandat bu fi jógee nag ñu taxaw exercer pouvoir bi ñun loolu mooy sunuy ambition te lii ma leen wax nii noonu laa koy wax woon def naa ardo fii Euh, noonu la ko Ardo Fall waxe woon en 2011 booba dara amul kon suñu waxu démb mooy suñu waxu tey waaye nag moom lañu ànd ndax li ñu ànd ak moom it dañoo gis li def ci réew mi ndax ku jël ku dem Fatick Kaolack gis yoon wa ku dem Dingiraay Kër Ayib gis yoon wa boo demee diggante maatam diggante Njum da ngay gis yoon yi gis hôpital yi gis bourse familiale yi gis couverture maladie universelle bi ak lu ne président mi ngi koy def tey jii euh, train bi waaye comme Thiès la ñu nekk may wax nag erreur bi ab Ablaye Wade def ci Sénégal mooy wàllu saxaar gi Thiès ku ne xam ne train bi express bi ak Arigoni moo ko rey il faut président Macky Sall comme ni mu ko décidé mu fexe train bi dellusiwaat muy jóge Thiès dem ko di dem Cotonou di dem euh, donc Ghana di dem fépp loolu mooy doxal mooy doxal mooy mooy doxal réew ñu koy ñaan ñu def waaw Dakar Saint-Louis Dakar Touba xam nga mënuñu nekk di ko di ko lim waaye réew mi yëpp ba ba Kédougou ah ba ba ba ba ba Ziguinchor war war a nekk parce que boo gisee suñu tali yàqu c'est parce que oto yi dañuy gis gan di di gas tali parce que marchandise train moo koy yóbbu train moo ko attan donc vraiment ñu ñaan président Macky Sall mu ñëwaat taxawalaat raay bi taxaw na saxaar gi di ko ñaanit affaire xale yi na ci taxaw xale yi sonn nañu te ñu bëri ñu ngi taxawal donc président na ci jublu ni mu def ci bourse familiale yi na ko def taxawu xale yi ci wàllu formation ak emploi buñ ko deful loolu mën nañu rattraper ci élection yi ay xale ci réew kenn du leen fowe donc lu mu mën lu gouvernement mën a def euh, jàppoon na ko bàyyi mu toppatoo affaire xale yi bi ci tegu affaire jigéen ñi financement yu ñuy def may wax ni jigéen ñëpp jigéenu Sénégal lañu ñu bokk pouvoir wala ñu bokk opposition moo ci yam nañ jël financement yi ñu jox leen ko parce que ñooy jigéenu Sénégal te ñooy du suñuy doom kon euh, li président Macky Sall te man loolu xam naa bëgg na ko mooy ñu jàppale jigéen ñëpp te mu bañ am xaj am am seen yooyu question laa bëggoon gouvernement bi eh bien euh, toppatoo ko. synergie républicaine ci parti yu ndaw yi la bokk parti yu mag xam nga dañuy wax toujours ni am na ay parti yu mag ak ay parti yu ndaw ñun lu ñu jàpp mooy dafa am ay parti bu màgget ak ay parti yuy mag loolu loolu ñu jàpp waxoon nañu it nañ dem primaire ñu xool parti yi wax dañoo mag lu ñu toll xool parti yi wax dañoo ndaw lu ñu toll ñu bañ. léegi nag élection législative yi bi ngi ñëw te suñu accord ak président Macky Sall mooy présidentiel parti moom alxuraan la ci ñun ni saa bu yëkkatee loxoom pour bëgg réew mi daañu ko jàppale waaye nag élection législative élection parti la li ñu xawoon 2012 duñ ko nangu mooy ñëw rek ne euh, bii bukki bii njur bi sàmba bii ki maamam dee loolu luñ ko nangu suñu bëggee euh, kii dañ ko teg ci yoon suñ ko mënul nañ bàyyi ku bëgg dem élection mu dem élection. su pare nañu pour lépp ndax ñu liggéey nañ wóor nañ suñu bopp. téeméeri député ak euh, juróom-benn fukki yi ñuy wax 160 lu seen gis-gis. xam nga boo gisee sénégalais yi bu ñu waxee téeméeri député ak juróom fukk ak ak ñeent fukki député lu ñu ci mën a doon ñu am ci lu ñuy wax c'est parce que xëy na député dafa Sénégal dafa warul dafa melul ni mu war a mel bu fekkee dañ leen a fal. ñu dem ci assemblée ba di fa saagante di fa dóorante bu ñu waxee dañuy yokk député yi askan dañuy wax ne amul benn njariñ mais bu fekkante ne dañ faa toog di wax wax yu yiw di xool problème mu xale yi problème mu jigéen ñi mais yooyu dañ bu bu ñu waxee sax dañ dañ def téeméer ak kii ñetti téeméer nit ñi nit ñi dañ koy nangu parce que xam ne am na njariñ tey damay wax ni Sénégal fi mu toll député boo xam ni amoo njàng ci tubaab. amoon njàng ci arab amoon njàng ci wolofal wala ci pulaar wala ci lu mel noonu waroo dem assemblée loolu moom dañ koy war a jóg. donte am nga base politique. waaye donte am nga base politique am na yeneen poste yu la mën a jox mais député ñuy wax affaire yi loi affaire yi peine de mort <laughs> affaire loi de tànn nga toog di xool wala di tàccu loolu dafa jaaruwul au moins na am certificat d'étude ci ci arabe ci ci ci français wala ci wàllu langue nationale alphabétisation mais bu da nga toog foofu ñuy wax. nga tàccu bon boo soodee nelaw mais kooku bu ñu nee Sénégal lañu yokk député ñi amul luñu benn njëriñ. loolu rek mooy coow leen jàppale président mu tàmbali am ndam ci département bi waaye yéen ñi yeewoo biir mhm. leen koo amal victoire. Mhm. lan moo si taxawaayu synergie républicaine. waaw xam nga ñun moom dafa naa ni grand mbay mi ak di xa tax mi ngi euh, fekke nañu li ñu war a def ñu ngi koy def sunu parti mi ngi màgg fii ci biir Thiès te lii tàmbali bi rek. defe naa ni am na ñoo xam ne fii ñi ngi ànd ak ñoom fu nekk euh, Idrissa nag sunu grand boobu dafa war a xam boppam parce que dañuy wax lislaam juróomi ponk la waaye juróom ponk juróom benn juróom benn ponk la juróom bennal ba mooy xam sa bopp bu fekkente ne bii da nga naan gañe Thiès gañe Tivaouane gañe Sangalkam gañe Mbour am sax foo gañe ci dakaar nga dem ba euh, yow ci biir Thiès kese kese ngay gañe te ci biir Thiès sax am na kàcc yoo xam ne dafa gañe waaye ku yokkuwul wàññeeku nga te it euh, asgor du xaar bañ jàpp loxoom génn ko ci ndab li te Idrissa euh, position bi mu bëgg muy nekk président de la république mootu la nekk yàlla dogal na ko 2007 la amoon chance bi mu yàq ko kon nag na seeti leneen li ma koy digal. yow xam nga eh, xam nga waaw mais xam nga. waaw xam nga man mii di wax ak yow wóor na ma ni mun maa nekk yonent am déet. loolu mën a waaw kay dama dama laa jox ay fee yu dama ne boo fekkee da nga ne bii da nga naan gañe fu bari nga dem ba sa buntu kër sax am fu ñu la fay gañe pour nga gañe dafay am problème da ngay xam sa bopp te Idrissa bis bu toogee bañ gañe ko Thiès gi dina am gàcc bala ko ci loolu fekk nag. te suñu grand yi aussi comme Afrique ñoom xam nañ nu ñu ñëwee waaye xam nañu ñu demee comme ni yaay jàmme vraiment ci biir réew mi am na fa ay xale yu taxaw na leen jox parti bi mu retiré wu. parce que moom du fi nekk président la parce que 2019 incha allah Macky Sall mooy gagné te bu fi Macky Sall jógee fi nga Macky Sall bu jógee génération boobu dootul toog suñu génération ñooy toog.